waaw euh, salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Guédiawaye info tey dañoo ñëw ànd ak sunu doomu ndey Fallou bu Waly kenn dootu ko laajteeti senegal muy artiste comédien bu mag euh, tey Fallou bu ñëwee fii ci Guédiawaye yàlla waa Guédiawaye info tey dañoo bëggoon gars yi ñu laam-laame naan Yékini at Balla Gaye combat bi nu mu demee tey dañoo bëggoon ñëw nga ñamal ñu si tuuti rek ñi naan Balla Gaye moo daan ñi naan Yékini moo daan ñi neen Balla Gaye ñaari yoon la la daan yow ni ci benn jour. waaw salaamaaleykum euh, maa ngi nuyu waa Suwal euh, du nuyu waa Baasul euh, di wax ne Balla Gaye 2 mënuma yëngal li ma ko waxoon rek nee naa ko bu ñu bare woon mille fois Balla Gaye numéro 2 du ma yëngal. lu tax du la yëngal. looloo tax mën ak Balla Gaye bi ñu bëree euh, yaakaar naa Sénégal yëpp gis nañ ko dama ko dóor mu daanu dama ko dóor mu daanu wala yow seetaanoo làmb jooju. waaw loolu seetaan nañ ko Sénégal yëpp teg nañ seen bët waaw loolu bu ñu jógee ci loolu léegi balaa ñoo sori dañoo bëgg te jii monsieur le président Macky ñëpp xam nañu réew mi ni demee léegi nag dañoo bëggoon nga may ci réew mi ni muy demee. at ak ah, ah, ah, ah waaye yow man maa ngi doon gént de. la Gaye 2 dama ko dóor mu daanu wala moo maa moom ko daan. non Balla Gaye moo la daan. déedéet Balla Gaye numéro 2 man maa ko dóor mu daanu. non Balla moo la daan ñiil ñaari jël ci benn tàpp. même bu dee ay gént la sax yaakaar naa Balla Gaye numéro 2 mënu ma yëngal. lu tax mënu la yëngal. léegi nañ of loolu ñu jàll feneen. léegi pour ñu jàll feneen mu gën a gaaw. Hmm. léegi Sénégal at ni mu toll fii mu toll nii at Sénégal ñëpp xam nañu réew mi ni mu demee monsieur le président Macky dañoo bëggoon nga wax ñu réew mi nu muy doxee. fii ak deux ans ci kanam. mbokk Sénégal mbokk diaspora man la président Macky Sall maa nuyu population sénégalaise bi yëpp di nuyu président Diouf di ñaanal président Senghor di nuyu président Abdoulaye Wade. di wax na nag comme léegi juboo na ak président Abdoulaye Wade ah li nga xamante ne ni moom laa fas yéene def mooy damay jël Ndiaye Drago fal ko ministre bi yor Drago fii ci senegal ak ci bitim réew bu ko defee ma jël Salba falko li nga xamante ni moom mooy ministre bi yor wàllu gis malaaka fii ci senegal loolu laa pare def incha man président Macky Sall. waaw Sénégal ñëw ko déggandoo ni waaw président fal na ah, gouvernement bu bees fal na Selbé Ndom fal na Ndiaye Dragon. waaw bu loolu weesoo tey dañ fay dalalaat gan gu mag gi nga xam ni kenn dootu ko laam-laame fii ci Sénégal muy futur ancien président Sénégal maam ñu ngi lay nuyu maam tey jii da ñëw fii ci Géejawaay ànd ak waa Géejawaay info. tey ñu dalal la ci place bu yanj bi te li dégg na sa loxo jugu ci léegi loolu lañ bëggoon nak nga nuyol ñu Sénégal nuyu waa Géejawaay waxal leen Sénégal nu muy démé mbokki Sénégal mbokki diaspora maa ngi nuyu population Sénégal. ñu ngi lay fay. yi wax ne man Cheikh Mame Abdoulaye na kontaan naa si yu Infos wax dëgg yàlla gis naa liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey looloo tax nag tey ma di déplacé pour ci leen Liebhanar, Regina, Makisar, Muran, Jubana, Ablavat, Varman, Jubu, Wangmum. Nach Gerald Bibel में पड़े ये गाने या गाने हमारे मुझे अब माकिसार वो बार जब दोन खैर अग माकिसार शिविर पहले भी अगर दोन खैर अगमो खैर नहीं बाय क्या हमें से मोमोई जोहना मरेम यो जरा को के दूर मुको जमा बॉबी मरेम फैसल मरेम फैसल मां हां भी में पड़े भी में ये ना जने गारे पिना माम जमने पड़े जमने पड़े waaye li may xamal daal mooy Macky Sall jubóoma moom see jubóoma moom ëllëg te dégg naa ko tamit mu naan far na Ndiaye danaa ko ministre lu ma ko nangu ko nangu ëllëg Ndiaye Ndiaye danaa ko man maa ko yor wàllu gis danaa ko fii ci Sénégal lu tax Macky Sall man loolu loolu kon Sénégal ñoo ko waa Géejawaay info ñu ngi nii tey jii ci place publique bu yaanj bi loolu moom kenn mënu si dara comme te yaa ko jëloon fal ko. mu eh jëlaat eh bi ma si yi mooy. waa Géejawaay info maa ngi leen xamante ne Vate Were def naa ko ministre bi yor wàllu rafet fii ci Sénégal képp koo xamante ni yaa ngi rafet rek Vate Were mooy sa ministre. Fallou Mongol moom daa def muy directeur cabinet am loolu daal daal woon Sénégal dinaa leen ko wax. ak ki nga xamante ni mooy njaay ceeb wax dëgg yàlla njaay di bi léegi nag Sénégal boo bëggee see lekk jërëtul ngay dem marché da ngay soog rek tàccu na ceeb ceeb ñëw boo ne mburu mburu ñëw boo ne oto sax oto ñëw ndax njaay ceeb njaay di bi def naa ko ministre bi yor wàll di ak ceeb fii ci Sénégal waaw bu loolu wóyee léegi ñi ngi nii toog waa Barthélemy tey dañoo ñëw seet si la fii ànd ak waa Guédiawaye fu muy site bu mag kenn dootu ko présenté di ci mim réew ak réew mi fi mu toll nii Barthélemy coow li bëri na trop trop trop mais xamuñu nu mu demee tey dañoo rek nga faram fàcceel ñu ko tojal ñu ko ci lu gaaw ndax lu duuf ci nag bi xajul ci cin li te waaxu xajul ci pandare mané dama né Khalifa Sall musul ñaan président Macky Sall grâce lu Khalifa man batalimi sama bat ca kaw yeen Sénégal yi yaa ko yéen ko waxal seen bopp man Barthélémy Dias musuma taxaw ñaan président Macky Sall grâce Khalifa Sall musul ñaan président Macky garas kon président Macky Sall na xam ne bis bu wàccee fii ci réew mi man Barthélémy Dias bu Khalifa Sall toogee président Macky Sall dinañ ko tëj lu tax ñu koy tëj en tout cas loolu laa amoon ci lu ma leen wax jërë ngeen jëf wa Sénégal ñoo ko déggandoo ñoo ñun ñëpp ah lu ni fàng kenn du jeex tey ñi ngi fii ci géejawaay ñëwoon ñu dalal ñu ci dal bu neex bu ànd ak ah, professionnel tey jii waa Géejawaay info ca kaw ca kanam tey dinañ ñëwaat ci yeneen facette ci yeneen côté ak waa Géejawaay info for life. bi ma leen bi may tàggoo rek moom mooy moom may leen tuuti Idrissa Seck rek ma tëje boobu maa ngi nag seen liggéey maa ngi rafet seen liggéey am na solo yéen a ngi jàppale jeunesse bi rawatina ñun seen artistes yu ndaw yi nga xamante ni dañuy doog a door. yéen a ñuy jàppale xeeboo leen ñu benn yoon gis nañ seen liggéey rafet na di wax gars yi nañ gën a abonné di wax na nag am na compte YouTube képp koo xamante ni bëgg nga lépp lu may def nga koy seetaan demal nga abonné ci Fallou bu Waly Seck comédien ngay def nga dem abonné ci wala sama Instagram nga def Fallou comédie bu ko defee nga abonné lépp lu ma dugg rek di ko mën a gis maa ngi leen di tàggoo nag ak Idrissa Seck salaamaaleykum mbokki population Thiès waa bépp maa ngi leen di nuyu di nuyu population Thiessois bépp di wax ne nag man la Idrissa Seck borom Makk ak Bakk kon daan ci yéen waa Guédiawaye info yëre ngeen jëf